Bombardier moom lu ma la mën a wax si moom lépp lu mu am ci làmb la fulla ak fayda ak fit ak jomam moo ko may parce que ku nekk ci làmb am ay perte roi des arènes ñëw ñafe waat ba amaat ko kooku ngàcce ngalaama amul lu ko nit di wax xale bu ko bëgg a daan da ngay dem liggéey entraîner préparer wu waaj parce que Bombardier nu mbër bi nga xamee da ñëw rek faras farañ see ko noonu c'est un grand champion mën na bés te yaakaar naa ni mbër yi ëpp fit ci làmb ji ci la bokk du tiit non loolu du lu ma xam ne dañ koy wax ci tele bi parce que Bombardier lu mu dee dee c'est un grand champion te loolu bu ñu koy wax wala bu ñu koy wax suñu plein wala dara loolu si sekkara la mais Bombardier bu njëkk ba ak Bombardier léegi bokkul Bombardier léegi il est xam na nu muy préparé woo te léegi nag xam na kër yu baax yi waaw champion la daal moom daal léegi mbër mi dëgg mu ngi ci moom. waaw mbër bu ne di nga xam mbër bu ne dafa am défaut mën nga utiliser mun nga ñëw nag tenter du réussir mun nga ñëw tenter mu réussir.